wax li ma fi waxoon. mais non moo tax ma gëm ni Maria loolu rek tax na ma gëm ni. ci code d'honneur am boobu Maria non sañul wax leneen lu dégg dama bëgg affaire bi sa à dire il vient de. merci à Birama de rappeler. non ko waxoon ci 2012 am en vidéo même vidéo yi vidéo ak vidéo. le président depuis que ñu toog fi malgré problème yi ñu am ci dëkk bi yëpp il a toujours respecté le calendrier républicain. Mm-hmm. toujours donc ci posture bi mu nekkoon 2011. ci la nekk ba léegi. le calendrier républicain ça concerne. les les élections les élections. non on a repoussé les élections. non mais ban élection lañ fi repoussé. local euh, local repoussé wuñ ko fi. pourquoi. ah mais mais de toute façon. c'est-à-dire mooy li ma la na prétexte bii nag moom bii nag moom mënta nekk. non moom il attendez le président n'est pas là à chercher des prétextes. non le président c'est des conditions réunies qui permettent au président de la République. de prendre une décision sur le report ou pas des élections mais c'est pas quelqu'un qui cherche des prétextes ça je peux pas vous laisser dire ça mënuma la bàyyi ngay wax loolu hmm. le président de la République c'est un républicain c'est un homme d'État report élection du lu ñuy nekk fii di ko kii ci bi ay biir nekk contrairement à ce que beaucoup c'est ça que je déplore en fait il y a des gens qui voudraient faire croire aux Sénégalais hmm. que ñun waa Benno dañoo nekk di deal ak waa PDS pour non c'est faux il faut ah, qu'ils arrêtent xam nga lan laa njort mooy sama intime conviction mooy ñin bëgg report nekk biir Benno nekk biir APR mooy ñi bëggoon troisième mandat du troisième candidature président Macky Sall ba léegi seen logique la ñu nekk. je vais je vais je vais vous surprendre je fais partie de ces hommes politiques et sénégalais qui ne croient pas à la limitation des mandats man. Mm-hmm. xam ma gëm. da ngay toog ba doyal rek. non non pas ba doyal non pas ba doyal. ñu ngi lay fal da ngay falu xam nga raccourci boobu moo dangereux en fait. xam nga lu ma gëm. sécuriser le système de vote ba nga xam ne kenn du am lu ñu ciy laam-laame ne ñi voté dañoo voté et rendre au peuple man loolu laa gëm rendre au peuple la possibilité de dire à quelqu'un tu as fait deux ou trois mandats dootuñ la voté kii la ñuy voté parce que kii lu ñu proposé moo gën parce que aujourd'hui mun nga limiter mandat yi à à deux mais fekk peuple bi ça peut arriver. bëgguñ nga dem boobaa nga indi ñu teg nga teg sa poulain ñu non non déggul ma non non non l' élection présidentielle c' est le rendez-vous d'un homme avec son peuple man gëwuma loolu dama la koy wax donc et pourtant et pourtant non xaar et pour non cest à sa gëm-gëm la hmm. boo waxee heureusement daf mel ni li ma wax baaxul non non non a des pays qui se sont développés avec un président élu démocratiquement plusieurs fois avec même un monarque n'est-ce pas donc ça veut pas dire que li ma wax dañ koy sànni baaxul dafa am fu ma ko teg dama ne la boo sécuriser sa système de vote ba kenn mënul euh, njubal njublaaj xam nu ñu koy waxee euh, les élections mm-hmm. Mm-hmm. bàyyil peuple bi ci boppam mu décider ne kii dina def deux wala trois wala quatre mm-hmm. comprendre président Macky Sall comme je vous dis nekkul ci ay deal parce que dafa wax ne moom pare na day dem donc ce qu'il veut c'est organiser des élections présidentielles claires calmes ku jël réew mi jël réew mi ñun nag waa Benno Bokk Yaakaar suñu candidat dañoo pare bu fekkee ne am na ñeneen ñu parewul ñu wax ñu ko te ñun suñu candidat la tamit du ñu nangu kenn di ko takkal suba mu gañe conseil constitutionnel wax ne gañe na. ñu naan dañ ko waxoon nañ leen ko loolu la ñuy bañ bëgguluñ ko te duñ ko nangul kenn. d'accord. Euh,